Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañoo bëgg a si rek ci lii responsabilité bi nga xam ne euh, sëñ Bass Abdou Khadre def na ko ngir yàlla respecté leen askanu senegal yi ñun ñëpp dañoo bokk juddoo ci réew mi kenn ku ne am fi ndey am fi baay am fi ay bokk respecté ñu dafa jot lii nga xam ne nun noo ko bokk nun waa réew mi kenn ku nekk war ci am coppit wala ab lanc jenn waaye taxaw lépp lu ñu yëkkati mu aaki moo ko loolu rafetut te li nga xam ne moom lañ ko sant muy ab liggéeyam noonu bokk ko xam muy ab porte parole maanaam kii day wax mu jottali loola bu ca bëggee doon milliardaire jaar yoon te képp ku dib Sénégalais boo naa féqul dama ne boo naa féqul boo dee dem sawara weddi lii ma wax waaw fan ko doon séenu du fii fan ko doon séenu du fii non seulement porte parole mu jot li ñuy dégg waaye naturellement dafa war a jóg di xool li naqari taalibe yi ak li metti taalibe yi muy jàlle kàddu yi waaw kuy porte parole nag dangaa war di jottali naqar yi nga xam ne taalibe yi sonn nañ ko mu metti wu dëgg metti woo xam ne kenn ku ne yëg na ko métt woowu da ko war a jël jàlle ko mu dem ca xalifa ba xalifa ba xam ko waaye heure boo génnee xalifa bi ne xalifa bi ne xalifa bi ne doo jël mukk mukk mukk suñu naqar wala suñu kàddu nga jàlle ko te sax yooyu sax dafa amul solo ndax amu ci lenn loo xam ne si lu responsable la parce que nu sommes des citoyens citoyen yoo xam ne ñoo toll ci degré ci capacité ak lépp citoyen yoo xam ne kenn ku ci nekk da nga am sax xalaat war koo wax soxluwuñu sax koo xam ne day dikk def interférence ci nga xam ne dégg nga maam moom lañu war a demee di teq te la ko teq jaaduwul li ngeen nekkee du dëgg du yoon waxuma ñëpp ndax am naa lu ma wér ne quatre-vingt pour cent des marabu quatre-vingt pour cent ñiy wooye marabu la ñu doon marabu ñi ngeen di doxale bëgguñu ko lu dikk ci yow la yem sëñ bas lu dikk rek ci lay bas sëñ bas gënoo may sénégalais te billaahi wallaahi gënoo ma ay bokk te billaahi wallaahi say bokk jëkkuñu samay bokk ci lislaam ji nga bëgg dunde tey dama la nga wax pikin nit ñëpp yem nañ loolu du dëgg du dëgg tubaab yi dañ ne tout ce qui se ressemble s'assemble suñu maam weddi ko ne ko waxoo dëgg tout ce qui se ressemble ne s'assemble pas du tout wolof dane lépp lu bokk lu bokkay booloo lu bokk mooy boo da bokk ak Macky Sall li ngeen booloo jaxasoo dikk fekk opposition boo xam ne ñu ngi am lu leen naqari ñu di ko lijjanti nga ne ñëpp a yem bu ñëpp yemoon kay lowu si Pikine bu ñëpp yemoon toogal Touba bu ñëpp yemoon ah, yemal ci mbaam yi yemal ci mbaam yi Macky Sall yi arrêté sëñ bas nit ñi sonn nañ nit ñi toq nit ñi di xool duñ ay jàmm ëppale wala lu toll tarfatal ay nit ci réew billaahi wallaahi taalib boobu di yalwaan ci mbedd yi yéen ñaar yéen a tolloo ci dëkk bi ah lu jóg ñu jox la quand le clerc ah ko fi waxee dangeen ko weddi nun ñu xam ko doon ni Sénégal xam li xew dem nañ ba nit ki si lépp dëgg la ah, yow baay bi baay bi sax génn gut nga jaay ci sa poos ngir bañ sa tur dem ci ah dama ne leen la jox ak li nga jëlee ci Macky Sall alal ju toll noonu Macky Sall defi ko ci éducation nationale sa kër yi nga dajale te amul amul benn kër goo ci liggéey lu danoo xàppati jox la te liñ dagg jox la wóor na la ne ci yar mu jàmbur ñu ko tëppit jox la nga lekk ko ce n'est pas normal dama ne ay murit lañ mën leen génn ci yoon wi waaye sëñ tubaa deful defulu leen di defulugul sëñ tubaa dadaa diñee di jox taalibe yi waaye lu dikk mel nag porox ngeen séddoo mbir mi dafa yàgg mbir mi dafa yàgg lool dafay ngeen di teg ay tànk ak di tifli donga sëñ yi nga xam ne sëñ Tuubaa gëm yaakaar ko ngeen def leen i jaam dafa tegginuwul lii am ak ni ñu koy doxale sëñ Tuubaa bàyyiwu ko fi woon nii tubaab bi ngeen lënkalool ak politiciens yi jaxase àdduna bi te billaahi wallaahi bu ngeen jàkkaarloo sëñ Tuubaa da ngeen sëgg taalibe sonn nañ lott nañu dàcc nañ xamatuñ fu jëm kenn ku ci nekk sa doom xamoo fu mu fanaan xamoo lu bëgg xale yaa ngi tëju ci néeg yi yow sëñ Bas lu ñu yëkkati nga jël xoola la Leclerc ci digg Ndakaaru patrimoine boo xam ne public ñu ni ko xàppit jox la nga di ko masquer ci suuf ah booba ñu ko jaay ko jël xaaj bi def ci sa poos defe ngeen lii dagan na dañ koy wax de ñun vivons dans une république boo xamul une république wax la ko waaye ay combine yi ngeen nekkee ak Macky Sall ànd ko ak tubaab jaay alal li réew mi seddoo ko dama ne ëllëg di ngeen ko layoo ak suñu borom man mii day mayuma la sama wàll sama wàll mayuma la ko waaw kon may jéggul te ñaan jàmm man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences